bisimilah indi yëpp. ñu ñëpp di ziar ñëpp di bëgg ñëpp. rawatina xaar yàlla bi nga xamante ne fii la ñuy yeewoo. doomu xaar la doomu Grand Yoff la. ba pare doon porteur de voix fii. si suñu bopp te lan bi. ah woote bi dara waralu ko. Mhm. parce que tey suñu terrain bi nga xamante ne tey jii nii suñu ndaw yi moom la ñu am ñun moom la ñu am. terrain bi ñun ñu cee sonn la fois passée tey jii ne amoon na ay xale yi nga xamante ne fii wàcce waa Sénégal wàcce woon nañ ci seen i poto quoi ba ay doomu xaar la ñàkk seen bakkan ay tout tànk nag comprendre nga te bind nañ lettre yóbbu nañ fu ne sonn nañu xam nga li ma la wax boobu ba léegi gisuñu mairie bi dox si benn jéego gisuñu benn bonne volonté dox si benn jéego comprendre nga jeune u nag ñoo jug jeune u xaar yàlla su xaar yàlla ñoo jug pour lii dañ fi parce que lii du dëgg du yoon dem na ba nga xamante ne léegi turukaay mbalit lañ ko def ay xaru jàmbur dañ fi dee poto yi dañuy daanu seeni kaw xam nga ba léegi assainissement bi nee nañ lii nii pour loolu la mais boobu ba léegi ñaata at affaire yee ngi fii nii xam nga dem nañ ba nga xamante ne léegi oto dañ ko def parking quoi à tout moment loolu danger la xam nga terrain bi fii nii amuñu benn kaaraange bi nga xamante ne tey jii nii mun nañ toog ne terrain bii nii xam nga nit bu fi jaar guddi sax xelam mun na dal lu ne nag mun na fi am lu ne mun na fi am looloo ñu métti quoi te loolu loolu ñu tax a jóg te lii nii dañ bëgg mu deñ fi depuis dès maintenant loolu lañ bëgg mu deñ fi te ñun bu ñu gisee nag ay bonne volonté yi nga xamante ne dañ ñëw pour jàppale ñu ñun décidé nañu pour lii ñu jëlee ko fi te ñoom am na ñu yakin ni ni ñoom mun nañ ñu jàppale te fii am nañ fi ay idées yu bari te idées yooyu noonu jeune xaar yàlla tey jii nii ñoom ñoo taxaw tey pour jéem fi def idée waaye mhm. tey sa seen euh, en tant que jeune euh, jeune xaar yàlla seen taxawaay ci li nga xamante ne tey mooy côté monsieur le maire moom ban euh, ban ban ban taxawaay la si def moom. mais dara xanaa lu dul ñëw wax ndax ñu après dem yoonam du dara. Mhm. kooku yëgul sax waa xaar yàlla pour muy leer boobu. way mhm. lu ko ñor daal mooy intérêt jeex na bu ñëwee dox na ko après jeex na. monsieur le maire tey jii nii am boo yoo xamante ne boo na ko kuy monsieur le maire grand xamuñu ko. man mbër laa xam naa ko. Mhm. est-ce que comprendre nga. Mhm. mais maanaam boog taxawaay bu mu war a taxawee biir grand yoo fa xaar yàlla dafa des ci lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri. Mhm. ñëw nañu nax nañu ne lii li ne dañ mais boobu ba léegi lii mënul fexe ba dañ loolu pour lan. pour lan te ñun ñoo ko fi teg te mun nañ ko fi jëlee voilà nit nag buñ la jiitalee da nga war a xam ne ni luñ la jiital nii jox la ko da nga ci war a mën a dox ay jéego ba mot sëkk. mais ay laqitu kese naxul béy quoi. Mhm. ñëw taxaw wax après nga dem sa yoon jeex na jeex na. Mhm. ban décision ngeen jël si terrain bi yéen jeunes yi. waaw ñun décision bi ñu ci jël mooy li ñu la wax rek. Mhm. am nañ ay nit yu nga xamante ne duñ wax nag parce que ñu ngi waajal benn réunion dimanche fii. si dispensaire xaar yàlla bi. comprendre nga lii rek xoolal dispensaire bi fii nii léeg ay malade dañ fiy ñëw tëdd. ñu def ko mbalik xam nga loolu rek baaxul quoi. comprendre nga. décision bi jeune xaar yàlla yi jóg jël jël mooy lii nii mu deñ fii. ñi ngi woo bonne volonté yëpp bàyyiwuñ kenn commencé ko si aadama fay bu ci mënee ñëw jàpp na ci ñëw jàpp xam nga képp ku nga xamante ne tey jii nii xam nga xaar yàlla ñor na la wala Grand Yoff ñor na la bëgg nañ ñëw nga jàppale ñu fii ñun am nañ fi idée quoi am nañ idée yu ñu fi mën a def parce que lii du dëgg du yoon suñu booy yi fii la ñuy fooyee xale yu ndaw yi fii la ñuy fooyee ñun fii lañ fooyee ba màgg tey jii bu demee ba mel nii lii neexuñu te lii neexul si gis-gis yow dem nga fa filmer nga ko gis nga ko dëgg la est-ce que dem di ngeen faral di def comme yéen ak wax yi comme ànd def benn seet seetal boo xamante ne tey pour côté boobu ngeen seetal ko mu seet wicc parce que yi fa nekk. ngi koy def. Mm-hmm. amoon na benn seet seetal bi nga xamante ne defoon nañ ko fi. Mm-hmm. mais gars yi lan la ñu waxoon dañ ñëwoon dañuy ñëw dégape affaire yi jëlee ko fi. Mm-hmm. ñu toog xaar leen ba ñoom ñoo taxoon ñun mënuñu kale woon suñu seet seetal. xam nga lépp daal ñoom ci ay wax lañ ko teg quoi ci ay naxaate quoi. te ñun tollatuñu foofu noonu. te gis ngeen booba léegi fi muy def ay jéey garaw parce que fi la xale yi décédé woon. waaw fi la xale yi décédé woon. fi la booy ñàkkee woon seen bakkan. te boobu ba léegi dara. boobu ba léegi dara. te loolu dafa metti quoi. ba xaar yàlla ñoo ñàkk. ñoom ñoo ne ñu taxaw nañu wax nañ seen i wax yaakaar ni mun nañ ñu nax mais naxuñu ñu ñun dañoo sàngu rek mais nelawuñu de. voilà. jërëjëf waaw ñoo ngi lay jaar waaw tey loolu moo waraloon a li nga xamante ne mooy woote bi yéen seenu xaar yàlla yi teewaay bi moom mooy waa xaar ñoo soxla moo soxla moo tax ñu woolu la comprendre nga parce que lii la ñu bëgg a jënd fii quoi parce que fii dépôt la woon boo xam ne bu yàgg la fekk ay tout tànk lañ léegi nag mun a defar fii ba mu baax comme li am ci quartier yëpp quartier yëpp lu fa am am ay jardin am ay terrain basket uhuh. xam ñu occupé ko nice ñun amuñu loolu xaar waaw mhm. loolu lañ bëgg nii quoi. jeune mhm. xale yàlla nga taxaw takk pour jële li nga xamante ne tey mooy mbalit mi fi nekk ak yeneen affaire yi fi xamante ne am na fi tey seen euh, seen diggante ki nga xamante ne tey mooy monsieur le xamante ne mooy moo jiite xaar yàlla est-ce que euh, jël ngeen ay ak moom ci li nga xamante ne jëm ci terrain bi. non monsieur le ko fi dese moo tax moom xalaatuñ ko calculer wuñ ko sax monsieur le maire moom jéemuñu ko sax calculer ci lii moom boolewuñ ko moom sax. Mhm. suñu programme. suñu programme moom li nekk suñu kanam. ñun xam nañ ko quoi waaw mais jarul ñu koy wax dañ koy nëbb pour l'instant waaw parce que gars yi bu ñu xamee fa nga jëm doo yegg quoi waaw sunu xaar yàlla seen yéene si xaar yàlla waaw suñu yéene ci xaar yàlla mooy defar fii ànd ki nga xam ne moo ñu ko war a pour defaral xaar yàlla grand mu jëm ci kanam am lu gars yi di am ay stade am ay occupation sport yoo xam ne jeunes yi dañ ciy gis seen bopp ñu gis nañ ko mooy Adama Faye moom lañ ko bëgg a defal moo ñu ko pare pour defal ñu ko. Mhm. waaw Adama Faye kese ah. Mhm. waaw. Adama Faye est-ce que euh, moom ñëw na fi xam na carrément li ngeen dundu fii. Adama Faye ñëwoon na fii pour defal fii yëpp ay tali. fii yëpp pare woon na pour defar ko tali moo defar assainissement bi fii depuis 88 moo ngi doon ball fële ne. Ah. depuis 88 moo ngi doon ball. mu ñëw fii defar ko plus de xaw ma 50 millions et jumaa ji waxuñu defar ko 50 60 millions et quelque. Mhm. ñu pare pour mu defaral ñu lii. moom pare na moom saa mu nekk maire saa mu nekk dara Macky Sall falu ko dara. waaw yàllaa leen boole rek mu nekk gorom. comprendre nga. kon moom pare na pour defaral ñu lii suñ ko wooyee pour mu defaral ñu daf ñu koy defaral léegi léegi waaw. dëgg la waaw 100 pour cent xaar yàlla bi rek la ñuy woo. jeunesse bi. Mhm. jeunesse bi la gën a soxla 100 pour cent xaar yàlla. Mhm. waaw la ñu woo dimaas am nañu réunion bu mag. Mhm. waaw di ko waajal nag waajal bi nag mooy. pour defal suñu gox. Uh-huh. waaw cent pour cent xaar yàlla rek. xam nga rek. waaw waaw moom mooy Ibou Cissé bi nga xamante ne moom dara ñor ko lu dul xaar yàlla. xaar yàlla da ko ñor quoi. Uh-huh. te luy avancé loo rek ci lay dox te yàgg na ci dox sax. Uh-huh. mais lii nii dafa doon li nga xamante ne xam nga comme moom ni mu ko waxee quoi suñ ñaari joueurs yooy noon ki su mel ni Cheikhou Kouyaté ak Moutarou Baldé mhm. ñoom ñi nga xamante ne tey jii nii xam nga ñu ngi équipe nationale tey jii nii di ko ñàkkante ñu ngi leen di ñaanal bu baax mhm. xam nga di ñaanal équipe bi ndam seen match bi ñu jëm mhm. comprendre nga bàyyiwuñ kenn daal bonne volonté yëpp ñu ngi leen di woo comprendre nga ñu woo képp ku si mën a jàpp na si ñëw jàpp sa parce que xaar yàlla début bi dafa jot quoi oui comprendre nga dimanche dañu waaj a réunion waaw am nañ benn réunion fii dimanche seize heures way hmm. sunu xaar yàlla bi yëpp ñu ngi leen di woo nu ñëpp ñëw teewee ko comprendre nga képp ko nga xamante ne daal xaar yàlla ñor na la ñun féewale wuñu xam nga li ma la wax te jéemuñu ci leneen luñ siy jéem mooy lii nii mooñ taxu jug quoi hmm. ku ñu ko defaral comprend nga hmm. loolu rek lañ ciy loolu lañ ciy woo sunu xaar yëpp na yi ñëw xam nga jàpp ci comprendre nga ñu waxtaan réunion bi képp ci am idée mu ñëw joxe ci idée xam nga li ma la wax affaire bi xam nga ñu xool ñu ko fi jëlee quoi jërëjëf Thank you.